bala may dugg duwaan damay njëkk lijjanti seen baay ba noppi doog a ñëw duwaan nag ku leen mën a défendre rek ñëwul ku mën a défendre waa duwaan rek ñëwal voilà léegi nag <coughs> damay indi vidéo waa duwaan damay wiiri damay wiiri la ma waxoon laay réitéré waat dem à l'étape superieur ya len bëgg défendre douane mo la ne nga défendre len ñëwal ak ñoom <laughs> dina leer danaa xam da douane mën nañ défendre ndax ñom amuñu gémmiñ pour défendre seen bop nañ génn wax nañ génn wax ay dëmm lañ réew mi li fi né taatay lepp taat moy feeñal lepp douane fa ciowli tambalé taata ko feeñal taat voilà un million. deux millions. dëgg la. dëgg six millions nga xam ne li ñuy wax jógewul biir APR jógewul lan la jox waaw suñ nday dëgg la 10 millions 10 millions 10 non non 10 ci Nabou Kane dëgg la parulaan yi teg loo mam parur yi Nabou war ma sa baag jamono voilà bii mooy première vidéo bi ma bi ma partagé ñu génn naan ma way kii du sama nit ki du sama nangam du sama lii du sama lële li nga partage du waa ji ñuy wax waa ji ñuy defaan xaaral ma andi ko bu ngeen kiiwee rek comme ni ma leen koy defalee toujours <coughs> damay bëgg rek bu ñuy ñëw am ay waxtaan euh, waxtaan yu am solo waaw waxtaan bii nag tey li ko yëkkati. mooy euh, vraiment comme ni ma koy waxee gars yi toujours parfois dinañu def ba mbir yi ëpp ñu loxo xam nga bu ñu nekkee ci dëkk boo xam ne dañu bëgg doxal dëgg dañuy dox ci dëkk lii wolof njaay di wax balaa ngay diggee sangu day fekk nga set mais bu ñu nekkee ci combat te combat boo xam ne ñun ñëpp la soxal vraiment kenn ku nekk ci ñun war cee def sa wareef am na loo xam ne buñ ko defee ci combat bi rek comme ni ko wolof njaay di waxee euh, lii metti ci ñun lay jóge gis nga je vais vous dire une chose euh, Abdourahmane Dieye directeur douane ak mbay njaay euh, nit ñooñu ay nit lañu yoo xam ne ku leen xam vraiment war ngaa xam ne dañuy def lu baax ci Sénégal <laughs> maanaam ay nit lañu yoo xam ne képp ku leen xam xam nañ ne Sénégal moo leen fi parce que Abdourahmane en fait amuñu directeur douane bu ko man man à personne man man je parle de ce que je connais en gain de cause xam nga ci ne corruption bari na fa ñu am nit vraiment ci dëgg rek lay dox amul benn wala benn ci lay donc c'est pas bon ñuy nit yu mel di dëkkal fu ñu dëkkul ak di leen calomnie ak di di sos ak di def ay affaire loolu du liggéeyu activiste xam nga activiste ñun dañu ñëw pour di dox ci dëgg donc nit booy doxal dëgg vraiment yow yaa war a jiitu ci dëgg boobu Abdourahmane Dieye est une personne extraordinaire ku exceptionnel la ku ma xam ndax man damay dugal nag ay oto ay bagage port di yóbbu samay bagage di indi mais xam naa port bi ni muy doxee ak ni mu daan doxee ndax man yàgg naa di dugal port Dakar xam naa nu muy doxee ak ni mu daan doxee donc bàyyi leen caaxaan yi te ñu te ñuy dox ci dëgg nit bu baaxee au moins d'accordal ko mbaaxam même yow bu la neexul acceptel ko mbaaxam waaye nit naka lay baaxee yow nga nekk ci say bouchit di jël say kaddu yu ñaaw di jël say calomnisation di ko ko teg te fekk tegoo ko ci dëgg après bu boobaa nag ñun ñu ne dëgg la ñuy doxal loolu naka la mënee nekk. xam nga réew boo bëggee mu dox dañuy waxante dëgg parce que réew dëgg moo koy doxal ay fen doxalul réew xam nga boo xoolee tey ku mel ni Abdourahmane Dieye ah ak directeur des douanes ak mbay Ndiaye ñu mel noonu vraiment ak Babacar vraiment mbay directeur régional ñu mel noonu xam nañu leen ci Sénégal Sénégal du ñëpp a fa baax nag waaye vraiment am na ay nit ñu baax donc vraiment respecter les Sénégalais quoi dafa am loo xam ne du du suñu liggéey ñun du suñu combat notre combat nekkul di attaquer ñëpp di jéem a takkal ñëpp di sosal ñëpp dañuy wax mais bu ñuy wax nañ ko teg ci dëgg teg ko ci yoon loolu mooy dëgg bu ñuy wax dañ koy teg ci yoon ñu ngi nii di bëgg a suñu bopp naan suñu waay accuser nañ ko lii accuser nañ ko léeg ñun ñu xam loolu donc lan moo tax ñun ñuy bëgg a yeneen nit di leen sosal di leen. <coughs> Ah, gis nga de <coughs> kii wax na lu lu doya doya doya doya doya doy waar koo xam ne dafa nekkoon impôt pendant quinze ans mu ne bëgg na nit wala nit kaa ngi koy defal ay affaire moom day transiter ay oto dégg nga bu baax biir Sénégal waaw naka ko waajay defale daf ko neex ba ñoom ba classe yar bi dalé ñu ku daw ñew ci yow dañu gënal nga défendre len wa Macky Sall amna na ñu mu defal lu baax Bass Abdou amna ñu mu defal lu baax fi ko fi tudd rek amna ku mu defal lu baax bu fekkee na buñ la tuddé ka nga defal lu baax dafa né ken waru la tudd kon réew mi parce que réew mi ram bu jog amna dom ram bu ko défendre xex da ngay clair c'est pas parce que système bi arrangé na la kenn du len dal lima ragal nak moy wa por wa douane ñi la ne gënal nga défendre len dañ lay sacrifier monsieur Mio Abdourahmane Dieye mi ngay défendre sanam fan la ñay nga ko bax la ñom dal sen salaire un million 300 la comme député un million 300 la nga ko bax la nga jël ko takalé ko ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko zé impôt et domaine lan motax ñu dàq ko dénoncer loubal ki ngay wax bu doon baax na biir port sénégalais buy sénégalais rek xam na ne duwaan luuba la fa ne ki ma partager nak nga nan ñak xam nit ki moo tax ngay partager du tagga né dama ko ñak xam de ki ma partager xam na ko de kan lañ ko dàq kan la takk jabar mo de magal bi moment magal bi ci la takk mariage bi ci la am motax gaay ko lokati ko dem isolé ko am fuñ ko denkandi en attendant xam nga ñun waxantu wuñu li ñuy wax biir port la jóge ay douane ñoo koy wax mu metti leen ñu di ko dund yow boo bëggee toog défendre leen défendable ñoom am nañu gémmiñ mën nañu wax mën nañ woo journal yi taxaw wax tontunte ak ñun parce que suñu alal lañ yor ay nit lañ ñoo xam ne impôt yi ni ñuy toppee Macky Sall di ko toppee Amadou Sall di ko topp ak keneen ak keneen ñom non lañ mel ci ñun ñun amuñu xajj ak seen dina lañ wax nak lu ndam pour ngeen comprendre gis nga limay wax man awma xarit ci wax dina leen jox Ben anecdote nak waxu personne la personne exact amul solo deg na ko nak mu wax ba nan sunu waji, ak ben douanier bo xamne ab satch la abdourahmane di la ay satch lañu douane douane sen keur te nak dañu xam nak di dem lo à l'étape supérieure dina la wax ben kàddu moy lan rakku serigne mbou bu samsung kan mo koy doxan ci ñom dama yor nak ay photo ba yor sen keuru piscine ak auto yi ñu jëndal sen gel yi keur yi ñu tabax ci réew mi dama yor ay photo salaire 1 million 300 lañ am pour muy clair ki ngay tontu nak dina la présenter kan moy ki ngay défendre kan mooy ki ngay defaan bi ñun ñoom ñëpp la ñu xam Sinja mooy cosaanam mu daw nguur du joxe cosaanam doo dégg mu ne Sinja laa dëkk mbuur la naan la dëkk 11 novembre tabaxal fa yaayam imam ba oto bi mu jëndal imam bi sax am naa photo bi parce que ñii c'est des yoo xam ne dañuy ñëw jënd suñuy imam jënd ñëpp ci alalu Sénégal alalu askan yow duwaañi duwaañi nga may wax de may wax nga naan ko baax la munuñu am ku ko gën parce que ku ko da nga naan munuñu am ku ko gën ci yow wax ji yusu ndur waxoon munuñu am ku gën maki yaa ngi bëgg a feeñal sa bopp nag parce que ci biir enquête yi <laughs> boo maytul di nga ci feeñ de te ay këyit la ñuy wax nag yi ñu mën a teg ci kaw taabal damay junj rek nag damay junj rek am na enquête bu fa ñëwoon te ba mu ñëwee Sénégal waa Sénégal dañ ko tuur lëndëm alkat yi ci seen biir la jógewaat ñëw teguwaat ci loxo na leer te ñiy def enquête bi ñu ngi fii mën nañ leen a envoyé waat enquête bi douane xam nañ li ñuy wax seen kër yi yëngatu ñoom ñëpp ñu yëngu yow nga génn di leen défendre yow yaay seen l'agneau de sacrifice nga dangay xeex ah te mafia bi nga xam ko bu baax ah kan ngay jéem a défendre kii kii ngay défendre Senegal mbokki diaspora bi ñi ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp di ñaan suñu gàdd yu fekk leen ci jàmm ki ngay defal sàkku ñaan ci yéen di leen ñaanal tey nag muy suñu ñaareelu audio waxtaan ñu bëggoon a indi jëmale ko ci toujours ci li nga xam ne mo dëj mën na jaay boppam xaaral rek dinaa la présenté kan may kan may mbaam yi dinaa la présenté mbaam yi bu baax a baax a baax a baax nga xam bala nga fiy nekk di wax lu ëpp dugal sa bopp andil sa bop problème parce que douane sen jabar yi ak ñom ak wa douane xam nañ li ñuy wax ak dé douane marchandise yow nga bëgg a fele bëgg feñal sa bop jamono yi ku wax feñ la reglel nak bu baax ñun taluñu la bañu duggé ci biir enquête bi duggu nañ ba gis la ci biir mais taluñu la ñu say wax gennal ci wax ji wala ñu genné say mbot tek ci kaw réseau bi ñëpp gis yobbu ko fañ ko wara yobbu na leer xeex la de day saf mondial nag nit booy dugg dangay dugg ci lu soyoon ne kenn waxut ak yow kenn jéemu laa xaya xayadin kenn jéemu laa wax dara ñun nag boo ñu bëggee xayadin li ñuy wax ci ay kayit la jóge biir duwaan la jóge na ci ñoom ni ñu ne armée bi am na ay patriote feneen ak feneen am na ay patriote li ñuy wax ci biir douane la jóge ñoom xam nañ li ñuy wax dof ñu jinne jàpp leen voilà na leer ah ma présenté ba pare ah jaddaat man ngeen man ngeen xaye di nit ñi fi xaar leen rek ma présenté leen ah, waaw waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye c'est le directeur des opérations douanières Mbaye Ndiaye bi ci 49 douaniers yi Ablaye Wade dugaloon ci biir port bi daf leen ay douaniers te ñu bokkoon ci biir parti démocratique sénégalais ci la bokk ci loo boobu la Mbaye Ndiaye bokk Ablaye Wade moo leen dugal ci biir douane bi ñu ñëw ñoom ñëpp nekk benn équipe nekk ci biir douane bi Euh, mu ne mu nekkoon directeur des opérations douanières Abdoulaye Wade da ko nommé woon nga xam ne daanaka moo topp ci directeur général ndax opération douanière yëpp mooy seen patron frontières yeeg port yeeg aéroport yeeg yëpp après bi Macky Sall ñëwee Macky def ko affecté yóbbu ko Saint-Louis yóbbu ko douane bi nekk au nord muy Saint-Louis sanctionné ko xam naa yóbbu ko foofu pour mën a euh, teg mafia moom tamit parce que ci pion Wade yi la woon Macky yëkkati ko yóbbu Saint-Louis ñu ko fa Imune dama ada dem ba yàgg ñu indiwaat ko Dakar dañuy négocier ak moom buñ ko négocier dëgg boole ko seen mafia ñu indi ko Dakar nag Farba Ngom ñoom ñu géré ko ñuy teg seen i ba ñu war ko def directeur général port ah douane plutôt ñu ko waxee def directeur général douane ba dikko ko ku ñuy wax Abdourahmane Dieye nommé ko loolu nag naqari Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye di kaas mais Mbaye Ndiaye comme moom moo yore opération douanière yi moo yore service moo yore direction des opérations donte que le mooy directeur général bi ñoom ñaar suñu jubóowul mafia bi du mën a dox dil bi encaissé yi milliards yi ak trafic bi ci bi dox bi douane bi du dox kii lañ ko waroon a jox joxuñu ko directeur bi ñu jox ko ko directeur bi fu mu mën a liggéeyal Macky ak Marème ci mafia bi il faut que mu am directeur des opérations bi ñoom ñaar ñu ànd DG bi ak directeur bi comme jubóowuñu ñu naxante ñoom ñaar woo leen def réunion ba boole leen ñoom ñaar ñu ànd léegi pour que mafia bi mën a dox ñoom ñaar nag ñoom ñooy gérer port bi fi mu toll nii mais jubóowuñu parce que ki nekk ci directeur des opérations bi muy Mbaye Ndiaye dafa bëgg poste Abdourahmane Diouf le directeur général la douane loolu mooy jafe-jafe bi mais ñi ngi gérer parce que voilà Macky il faut que muy encaisser ak Marème ak Amadou Sall pour seen trafic bi jaar ci port bi. ak mafia oto yi ak yu bëree bëri milliards yu ñuy encaissé budget Sénégal yëpp foofu koy lekkee ci douane bi Mbaye Ndiaye moom mooy borom photo bi photo bu xees bi ak lunette kooku ay Mbaye kooku moom mooy mafia bu mag bi aha Abdoulaye Wade moo jëloon quarante neuf ñu nekk biir UJTL ak mel yooyu ci partem mu yóbbu leen ñu def formation ENA ñu génn ñu tappale ñu def leen ay inspecteur des douanes directement te douane ñaari nit la daan jël deux personnes lañu daan jël chaque année deux personnes ñu daan dugg biir douane Abdoulaye Wade ñëw en 2004 2005 mu dugal 49 d'un seul coup ci la bi yàq ko ba léegi ba tey Abdoulaye Wade moo ko yàq. voilà ma waa jaa ngi ki ngay bi ñu bi moo xew ci port bi te muy douane bi xam ne lii moo métti sawaay lii moo tax douane ci ëpp ci douane bi jóg défendre ñu ma waxoon leen ko lii moo métti gars yi ñu ne Ousmane Tounkara acca il faut nga jóg défendre ñu mu jog di xas activiste yi nee la ci biir enquête bi liñ ci yor bari ki nga nan ku dama bëgg nga lijeenti rakku serigne mbuub nga laaj kan mo koy doxan ci ñoom bo bëggee xam gis nga réew mi jigéen ay feñal lépp jigéen mooy feñal yépp ñi dañ leen topp yor xolal étape supérieure sen dem nag seen kër yi lay génne oto ñu may seen imam yi ak seen gel yi kër yi ñu leen jëndal ak fañ leen di dëkkal ak fañ leen di héberger nee naa la fii kër go fëgg seen gardien yek seen kii yi xoolal secteur yu cité yépp lañu am ay nit fuñ dugg rek photo buñ soxla ba ngay bës bu rek booy loxatil la photo photo kër kuy gelam may wax ak seen ex gel yi am seeni photo xam leen ñii dëkk ci di gu metti ñu di ko wax di kaas pour que ñu yemale nit ñi ba ñëpp mën a am ay droit biir Sénégal ñu di ko wax nga génn ne yow ya len di défendre may wax nga bëgg ko jël ba di ko tolloole ak Ousmane Sonko da ngay sétli da ngay sétli ku ne bu xolé kako arranger mu faral ko kon réew mi bu kenn wax ak kenn bu kenn wax ak kenn parce que fi ko fi waxal am nañu ñuko défendre wa kër lu lañu len ko fi laal rek am nañu ko défendre Sering si dañuy genn saga yonente bi amna ñu leen défendre itilaire bu dekki won tay ñew sénégal donte coloniser wul woon sénégal bu da fay am ñuko ko défendre bir sénégal sénégalais ñoy ay jaam sénégalais ño dem ba jekk doon ay nit doon ay mbam. ñi ko leen mëna défendre sàcc yi ñii ne mu garal nii ne pat kott ñu rek jëmele fu kenn xamul ñuy wax ak ñom nga ne yow comme arrangé na la daal ñi mu arrangé wul yow sa yoon newu ci yow bu dee yaa ñu ëpp làmmiñ ak mën nga teg dara ci kaw taabal ji du xa du doon xasante du doon saagante ñun dañuy génnee rek teg ci kaw taabal boo amee loo ñu jàppe génneel nga teg ci taabal ji ñun bu ñu amee lu ñu la jàppe boo signé rek man ma génneel la tegal la ci kaw taabal ji la ñu fekk biir douane ak fañ la fekk mais ñorooñu woon doy caaxaan de ñorooñu te boo weddee liñ la wax laajal waa douane gaa yi topp fi ay oto yu ñu sàcc ba dugg biir Sénégal ñu lëndamal gaa yi gaa yi dellu si nga defe ne dañ bàyyi noonu Europe demeewul noonu de duñ bàyyi noonu de oto yu ñu sàcc ñu fekk ko biir douane douane yi yëkkati jox ñu ko nga bëgg leen a miimal parce que yow yaay seen l'agneau de sacrifice bu ci dugg de ay borom làmmañ nga ko séqal te xam nga dañu waxantu voilà. ci sama ndégget bu njëkk bi. di ay xew-xew yu rëy rëy yu am ci biir douane bi ci ay càcc alal ay milliards yoo xam ne dafa jot nag Sénégalais yëpp xam li xew ngir ñu mën a soppi li nga xam ne moom moo xew ci biir douane bi ki ko jiite di dégg nga maam Abdourahmane Dieye waxoon naa ci moom barki démb euh, déglu ngeen ko yéen ñëpp waaye dinaa ci dikkaat sax ci moom waaye tey ci ma bëgg a waxal tey dama annoncé woon ko ci sama Facebook mooy ki nga xam ne mooy Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye moomee nag mi nga xam ne mooy directeur des opérations douanières ci moom laa bëgg a taxaw tey nit ñi xam mooy kan ak njuuj njaaj gi nekk ci biir port bi mu nekk koo xam ne <clears throat> fii la ko Abdourahmane Dieye fekk ñoom ñaar ñu daje kii nekk directeur général moom mu nekk directeur des opérations douanières moom Mbaye Ndiaye waaye directeur des opérations douanières bi mu nekk nga xam ne lépp luy opération douanière lépp luy dédouanement ci Sénégal ci loxoom lay jaar mooy chef bi ku am doole la ci douane bi opération yi nekk ci douane bi yëpp dédouanement yeeg entreposage yeeg. xamee leen ñëpp capture leen photo bi ñii suñuy employé lañ dañ leen war a xam suñuy employé lañ tapte leen ñëpp kii douane la nekk <laughs> kii ba Ababacar Mbaye mi ngi nii. ki moy ababakar mbay do am rek gis nga bu ñu police fëgg armée fëgg gendarmerie dañuy fëgg bir douane amna yenen nak yo xamne ñu ngi fay ñew impôt et domaine tamit ñu fay ñew dañuy war rek ku ne amna fu muy door mo la day taxaw ni di door ñene taxaw na le alalu ay la ngeen yor ta dañu son dañu son sen dund dafa wuteeg suñu dund ba mu upp ta suñu employé ngeen salaire 1 million 300 ngeen yor li ngeen di dund dafa ak li ngeen di encaisser kenn du ko wax ma jox leen seen photo yi ñoom ñep ñu capture leen xam leen xam ñoy ñan ku ci nek dem gëstu ji nañ dugg bir douane ki moy kan japp leen tour yi de leen japp tour yi capture leen capture leen de leen japp tour yi ay sacc la leen di won ni ki moy mbay ndjay mo nek ni borom ver ki abdourahman jéeya ngi ni xolle xolle xool leen rek ñii amuñu xol la la wax ni li rew mi yëm nit ñi di bëgg a seen yoon newu ci seeni doom rawale nañ leen seeni jabar la ñuy dund machallah ñun ñu ngi bëgg a dee mbedd mi buy toj seen yoon newu ci duwan bi lañ ko kal lu dugg ñu téq di nos sen nos nga nan lan kenn du len tuddu kenn du len tuddu ba Ousmane Tounkara ya, ya, ya, yow yaay défendre ñi ñii amuñu gemme yow nee la yow buña rek lañ lay jox moy li ngay yenn ñew sa bénéfice bang ca yaakaar ak say prêt no bu ma tax wax nag bëgguma wax ci yow bul ma taxaw wax limay wax ay kayit la dama yëkëti teg ci kaw table ji fëgës door duma ci wax nak damay jël rek passara ci réseau bi ñëpp gis duwan la jogi signature ak lépp date jour heure date jour heure teyal bu ay nit mando ci say bagage da ngay mando ci seeni bagage doxalal kenn tuddu la bo amé problème ñun ñep ñu taxaw viré ñeu taxaw ci yow bu ñuy tuddu ay nit yow mëno leena défendre tu es mal placé pour défendre leen teyal da nga nopi rek ñu nopi bu lolo amul rek ñu gëssam man damay gëssam fichier bi tek ci kaw table bi mi ñun ñepp ci wara a du dama wara macc sama bong bong rek muy neex kenn waratu tuddu fi way macc ñepp a macc ndo bo duggé ci rew tuba bi lepp jaar yoon amul ñi di dund ñële toog bo fi dugg sé doon sénégalais lañu la teunkel top ci muy lan utal ay keuyit amal ay keuyit nekkal ci instance yu yu nekk en règle demal ci agence intérim nga déposer sa CV ñu wola yebal la ci entreprise nga wane li nga mën nga am sens sa dund yomb lool pour lan Sénégal mënu ñu installer lool bu tax ñen ñi wara dund xay classe ñeneen ñi di mënu ñoo dund te kenn du leen tudd nag nek suñu liggéey kat bo waxé imam yi jop imam yoyok ñoma yem c'est que des domaram ñoyam ñom li ñuy wax ñun ñom xam nañ ko seen jabar yi xam nañ li ñuy wax ñom seen bop xam nañ li ñuy wax buñ bëggee défendre nañ défendre seen bopp alalu réew mi lañ yor war ko wax mu leer ci lañ bokk mënuñu dëkk ci di daw ba xey dee te duñ wax nañ ñu lekk ñu xam ne ñun lekk nañ ñu waaye nañ ko wax ba ñoom ñu koy dégg seen doom yi di ko dégg point S300 yek, dossier 500 yek, DIPA yeeg yëpp ci moom la jaar maanaam daal amul lu toll ne ngelaw loo xam ne day génn xaalis ci douane bi te moom nekkul superviseur bi moom Mbaye Ndiaye mi moo tax il faut ñu wax leen mooy kan ak lan la nekk ci réew mi Mbaye Ndiaye dafa nekk nit koo xam ne dafay nax nit ñi ko xam ci jëmm ak ci ni muy doxalee day matt ci kaw di ëf ci suuf di leen wan na ku jullite la di leen wan na ku jub la di leen wan na ku professionnel la waaye lu mu tabax ci kaw tabax ko ba mu xeemeem bañ ba ngeen xeemeem ko bu ngeen demee ca fondation yi moo raw janax yàq xaalis milliards njuuj njaaj moo tax Sénégal budget bi mënut am xaalis jamono bi may wax ak yéen ni député yi ñu ngi kaas ne duñu indi budget bi duñ ko voté waaw wàllu Sénégal ne nañu mënuñoo voté budget bi tant que Amadou Ba deful déclaration de politique générale waaye yeewi askan wi ñu ne ñoom loi de règlement bi nga xam ne loi organique bu bi nga xam ne mooy sanc moo tënk fi loi de finance budget bi moo ne mënuñoo voté budget buy topp ci budget daaw bu ren mënuñu koo voté pour déwén te bu daaw bi nañu ko liggéeyee càmbar ko jaay ko jënd ko indiwuñu bilan bi mooy la loi de règlement député yi ne nañ opposition bi ne duñ ko voté tant que amuñu loi de règlement bi. loi de règlement boobu nag nga xam ne ku jéggaa nga koy ut duñu ko am ndax loi de règlement boobu bis bu ñëwee ci ngeen xam lii ma leen wax ci biir duwaan bi lan moo tax loi de règlement bi du dikk ndax sàcc gi nekk biir douane recette yi ñuy déclaré ci biir budget bi ne dañ koy am ci at mi te duñu ko am. dépense naan dañu koy def duñu parce que ak la loi de règlement bu baax député ne le directeur des opérations douanières le budget bi soumettre ngeen c'est pas un budget sincère et les principes de sincérité budgétaire les principes d'unicité du compte de l'État le trésor public le, principe de de de, de, de, de comment on appelle encore, L'autre principe qui consiste en fait à effectivement voter la, la loi de règlement. Parce que depuis le référendum de 2016 il y a am sañ-sañ bu l'évaluation des politiques publiques. deux millions dëgg la dëgg la eh eh dëgg la cinq millions cinq millions six millions tubaab preuve la bëgg. àdduna bët. sept millions dëgg la. yu bees yi lan la jox waaw doomu nday eh guddi dëgg la dix millions dix millions Koloknya. Kita udah di depan sekolah. No no, di million Cina bukan? Deglo, parurani, teglo. Mam paruri. Number one masa jamo. Cum. Tanyar lo nak dah bagi. Cum. Apa nak? Mama abi. Abduanya boleh definir. Abduanya boleh de. Ki, li mungkin ada semua mau magal biko gaay yegé né yi ki day feñal suñu mbir gaay né ko doñet yob ko frigo en attendant lañ ko tek frigo frigo lañ ko duggal en attendant ci moment bobu jeriñu ñu askan wi dara raket rek sacc triandé loubal waye say bu data ñëwé rek dootuñu ci and ak ngor data bu ñëw rek ñuy fay moment bobu ana boy talal grand grand tal ko gaay lii moom Ziguinchor la xewee ah Ziguinchor la xewee waaw xoolal la jël modifié def ko moto waaw moto Jakarta sëñ bi yow noo noo noo <laughs> tudd. Serigne Serigne Touba ah. Serigne Touba moo créé lii à Ziguinchor. waaw. waaw xoolal. vélo Jakarta bi dama am contour. vélo Jakarta. xoolal xoolal. création la. xoolal. xoolal la ko modifié. vélo la ko modifié mu ngi nii. léegi grand mën nga nga daw grand ñu xool ah. voilà mu ngi nii mu ngi nii di daw mu ngi nii. mu ngi nii di daw mu ngi nii mu ngi nii grand jërëjëf jërëjëf grand jërëjëf jërëjëf grand. voilà après ñii ñooy toog ci réew mi yor suñu alal booy yi nekk ci réew mi doon ay jàmbaar ñii amaluñu benn njëriñ ñu benn njëriñ ces douaniers là ces chef là njëriñ amaluñ amaluñu ko defuñu fi gat taxawaalu école yi xëy suba. ñu jox leen ben diplôme ci kaw politique ñuy tégante suñu kaw ba paré sàcc nday suñu alal duñ ko génné ci boy yi nga xamné xarañ nañu pour mëna a ay nit parce que fi ñaara fi am tay doom sëtu mbélélam la ma ngi fi europe tuba bi bima ñëw dañuy xol man lan la lan la xam lan la mën dund naa fa ba xëy màgget jangal fa ay xalé amuma fa diplôme ñu reconnaître sama diplôme bima waré ñëw la fexé dem wutali sama bop ab diplôme ñëw ba fii ñu ne ma diplôme boobu kenn reconnaître ko il faut ñu dugalaat la ñu am diplôme ñu dugalaat ma am diplôme xam nañ ne am naa lu ma mën mais dañ may booleek ay xale yoo xam ne dama leen di yóbbaale xale yi ne ci réew mi mën a yóbbaale ay nit doomaraam yi toog ci institution yi xolal raket sàcc dajale ba pare data rek ay mën a génnee seen alal data rek ak ku leen mën a valider data rek bu data taxawee rek ñu compter ay millions ak ay pariru or rek boy yi nekk ci réew mi di xuutar xuutar bari xam-xam am inspiration di inspirer wu pare paré inspirer wu ba tass songu geej gi frontière yi dem dekk bo meuna dem dang fay fekk xalé yi dekk ba ak seeni baay ak seeni mam ak seeni niti institution fo tok ba man faa jeriñ gañe fa loy yobul sa ndey ak sa baay sa ak sa baay bi la fa ba bi la ba yow nga genn fa dem bo ñëwee dang fi fekk ay xalé yu am nday ak bàyyi sendai ndey taxaw len seeni bay taxaw len bañu mëna liggéey jëriñ fi yow sa nday wacc la sa bay wacc la ne du politique nga genn fa fekk fi ño xamne ne da fekk seeni nday ak sen bay ñu tok tok ak seeni cosaan tok ak aada sa nday ndax febar nga wala nga lu jot lu jot lu jotul lu nak rek lu la naqariwul wër dee na nangam fayaguñ ko wër dee na jotaguma pension wër nangam xale ba amatul daray àddina mu ngay daw rek bala soxlam sax na xëpp ji pourtant fi mu tok di len lijeenti daf fi fekk ndey ak bay ak mam ñuko am ñu tok ak ñom ci biir yeen ñu nekk ci biir rew mi pay ak mère li bu makoy wax sama xol day toy motax sama rongoñ touru dem ne ba tey comprendre len lan lañ wara xex ak li ñuy wax lan la may wax ay gong joge fele di lijeenti ay problème 3e mandat Gaston ay nit nek fi tak ay galon ñak jom rew mi di soxé boy ne fi ñu war leen mëna jappalé boy ba ko xam dara sax ko xam dara sax ñu andi la problème fi gis nañ fi boy bo xamanteni wa douane dañu def seen affaire ba paré ñu mu gis ne dañu am fay xawma douane la xawma ñanati lolu ken faté wuko mu déclarer leen fay bi rek ñu japp ko nappus tëj yéen ngeen monté ba paré mu ne leen seen logiciel bi dafa am fay xalé bu touti ngeen jàpp ko nappus au yi ngeen fexe encadré ko mu jàngal ay nit mu mérité ay milliards parce que doole ci moom waaye déedéet doomaraamu datakoo yi ñoom ñooy nekk ci kaw gérer ànd ak seeni doomaraam ci suuf boo leen tuddee doomaraam yi jóg di leen défendre il faut xam lan la li ñuy wax lan la li ñuy wax daf ñu raw ñun li ñuy wax dafa rey suñuy ndey rey suñuy bàyyi toroxal ñu ñun kon fi ku fi nek di xex di xol sa intérêt bop do dem man nee len limay wax awma ci nday ak bay sama bay bima jur suma ko waree wax deug dama koy wax ma jox len ben anecdote nag aw ma ci neub neubal pour ñi taxaw naan way jiji way yena bok xex bi yena awma kuma bokal bokkal lu rek na tegu ci kaw deug sama bay bima jur dama koy waxat tay ngeen deug sama ñaari mak seen jabar jote nañ ñu wote nañ tok waxtan dugal ñu ci saal ñu tok waxtan mag yi wax ba pare ñun xalé moom amo kaddu da ngay fekk rek dañ lay wo nga fekk bu mag yi ba pare def nañ seen kaddu pare dekk leen ñaan def leen saate fatiha salatul fatiha mané ne bu ngeen ñu woy ñu nekk ay xalé wo ñu ñu fekk dañu am ay kaddu c'est pas parce que yaay bay ya fi mag da nga wara wax ñun ñep ñu ne gongo problème am do wote rek way ki keureum paré na na toxu pour problème bañati am dedet da ngay xol lan moy problème bi parce que ñaar ñi leen tak ay magal rakk lañ ñoo fanana do ci nek ken xamul fan moy negu kan ak kan mo jur kan ay dom bay rek fi ne ñooñu and ba xey mat tak jabar and depuis xalé andi seen jabar jabar yi ñoo jubo luy problème bi ngay jëkkal a lijjanti génnal kër gi nga taxu sa kër pour jamm mëna am amut lolu du régler problème da nga déplacer problème mais problème day ñëwal fa mu taxu am kër keneen ki am na fa kër pareegut bu fa taxoo pour jàmm am yàgg yàgg kii day taxu bu fa taxoo problème baa nga fa ba léegi kenn ki ngay wax dëgg lu leen boole root ndox andi sama ndox waroo ko laal sama alal la waaw nga xamal ko ne kër gii bu fi sama amoon dépense du fi dugg sama amu fi xamal ko ne ñi ngi fi fekk ñoo bokk ndey ak bàyyi yéen a sëy si bu ngeen mënee bokk ndey ak bàyyi xeer bu ngeen ko mënta bokk fii sama amu fi ba loolu leer kuy toxu toxu sa coobare bop waye problème bu taxalé nit problème jógu kon sama bay bi nga xamné ne moo ma jur laa wax loolu ciow li ne kur man satuma la kenen kon man nekuma ci ay problème personnel lijjantiwuma ba li limay wax dëgg laam du deug ku meuna wedd liñ baangi ni nii ubbeeku na duwaan laa la wax sàcc ye ëpp gorñi ñi ye tok ci kaw gorñi ay gorangi fa nak te liñuy wax biir duwaan la jóge ay kayit ak i preuve ak lépp boo yaa ngi ci réew mi dañu war a dund douanier yi du ñu ñëw te jël seen doom yi yor benn façon dund boo xam ne c'est supérieur ak suñu dund te doon suñuy employé police fasalika armée fasalika police fasalika gendarmerie fasalika pompier fasalika mais non l'homme africain boo solee tenue tu es un demi-dieu africain boo solee grand bu bokk ci ay tarixa tu es un l'homme africain si nekek ak la mer, tu es un demi-dieu l'homme africain si xëyee ba ñu député tu es un demi-dieu l'homme africain bon policier tu es un demi-dieu mais ça c'est dépassé craqué le loolu craqué Nous Nous là. pas de complexe gars nous dañuy wax nous. parce que nous dem sans nous ñoom nous mais pour nous, nous ñu pour nous, nous fàtte ñu lutax tax bi lutax tax wayadal bi lan motax tax tekki wuñ dara lan motax kenn duñu considérer bo duggé duwaat lu ne lañ lay yàq dang leen di xaar ñu dem nappaaji seen mais mais mais mais promotion canapé biir duwaat la uppé da ngay noy am lepp ñaaral bi ñuy wax ni fan la joggé dafa amon jëkër bi muy dugg duwaan biir la tassé ay bu ma bul ma de ñun waxantu wuñ de waxantu wuñu la la wax pour muy clair wax ni rek pour am envie wax ñu fee tok temps dafa cher europe lañ nek wara lijeenti ci ji leneen ñàkk suñu njabot nakar top ñu jëm ak ñun fan xamuñu ko loolu lañuy lijeenti donte dañ koy ñak sax ñu baña defal suñu doom dara waye buñ ñëwee fekk ci lu jag dund ci mu yomb ci ñoom ku sañol li nga daj sa dom du ko daj ku sañon li nga daj sa dom du ko daj ni ngay dund ci dund bo xamne leer na la li ngay jogati ni yëpp ci échelle bi nga jaar mu metti trop dëgg yi taxaw di la xaar chaque jour ngay fente sa dom bu juddoo bo deewon tay tay tay ci la même chose lay dund lolu ñepp la wara inquiéter ñun ñepp la wara inquiéter on doit s'en mêler ñun ñepp ci wara duggal suñu loxo ñepp wara wax ku nek wara jël sa yat dem rebi ku am jiit andi ku am jaar andi ku am kañe andi ñu boole yeb ya baxal fexé tenir biir yi régler problème bi may wax ay nit taxaw fele té la jënd seen mbot mbóot ñom ça va il se la coule douce yow lo mëna wax wax na say mbóot làqu rek non lolu du fi am de lolu du fi am Kumu mëna don nak doon nag muy Akhenaton muy jadudu muy kumu mëna nek fii ku fi luubal def ci lo war na def man suma ko waré wax boo jàppanteeg doomaraam yi ñu di la defal ay bagage ci suuf ñu laal leen nga am loy piniqué muy sëriñ muy ku yor institution bu ñu waré dal sa kaw bo génné di leen défendre ma tay la ci gat bu joom nak bama ma yem ci xor bo def amul seral na leer nak problème lañuy xex té li ñuy dafa reuy du ay caaxaan am réew la réew yi gënu ñu ñu tubaab yi déggoo leen ñuy bugut buguti pour lan ñun tout le temps foo jekk rek say loxo takk day te ñu ne kenn du ko wax nag boo ko waxee rek ñu andi naan la wuy defal na imam bi li mook imam ba ay doomaram lañ ku yëkkati alalu askan jox ko imam jox ko xalif général ñëpp ci yem ay doomaram lañ munoo tudde kii doomaram kële di lekk alalu doomaram nga ne muut bu ko tudd parce que ca jàkk ja la toog jàkk ja lañ ñu naxe fii amul jàkk te ku jóg bëgg a dem ñom ñep pa yep ku ci bëgg bedem, dund jël avion bi dem ku ci bëgg faju jël avion bi dem jakk yi ne xus réew mi juma yi ne xus réew mi diine ji ñu di wax suba ngon ngoon gu dégg bëccëg mais doomaraam yi kenn gëmu ko ci ñom sen nax suba kenn rek sen caaya rek douane nak police ak gendarmerie ñep ci yam ay mbam lañ buñu ay gor liñuy kaas ni ñom ñoko wara war parce que ñom dañu entraîné ba tass def seni formation waroon nañ am gàcce sax toog ba dégg seen boy yi di wax ñi nga xam ne ñoom lañ wax ne ñii c'est des minables ku jaarul formation minable nga gàcce la ci ñoom ñu toog ba dégg ñu ñuy wax